yéen ñi safoo di topp 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ñun daleen jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi euh, gannaaw bi ñu amee niki démb beneen ko retour de parquet Kilifeu Simon ak seen xarit bi di Thierno Amadou Diallo tey jii la ñuy xam fu ñuy mujj ci coowal passeport diplomatique bi ñu leen di euh, tudd euh, bu dee nag juge d'instruction bu deuxième cabinet def na li nga xam ni moom la ko maître des poursuites bi daal di wax kon Kilifeu ak ñooñam dañu leen di tëj ci kaso bi laata nag leen di àtte ca tribunal nga xam ni moom la ñu teg ci seen euh, ndodd bari na torop ba tax bu ñu moywul daañu tëdd juróom jàpp fukki ati kaso euh, boole ci euh, ndàmpaayu rek lu toll si benn jàpp juróomi million ci kopparu CFA ñu wëyal ak waa mouvement Y'en a marre nga xam ni nag ñenn ci seeni ay ñooñ di Kilifeu ak Simon dañoo nekk si jafeñ-jafeñ ndax trafic passeport diplomatique bi ñu leen di tudd loolee nag waral ba ñu joxe rek askan wi dig daje ki suba ci alxames bi ci ab jàkkaarloo ak déclaration boo xam ni bu am solo lay doon waaye nag waxuñu benn yoon euh, yooyu le euh, kàddu ana silan rek la war a euh, tënku ñu woyal àddu ci waa Sen'Eau ñoom nag weddi nañu tuuma yi nga xam ni moom la ñu teg ci seen ndodd jëm si coowal compteur yi ñu ne rek melul li nga xam ni noonee la war a mel ba tax seen facture yi di yokku loolu nag war a moo waral ba benn bataaxal boo xam ni fësal nañu ko ñu xamle ca ni ndox bu bari bi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo li ko waral rek mooy pression bu gaaw te baax bi nga xam ni moom la ñuy coppite ndox mi waaye itam fuite yi nga xam ni moom mooy am ci yenn euh, kër yi ñu jàll ci mbasum covid 19 beeg tolluwaayam ngir dëktal leen xayma bésu tey bi yemoo ko àllarba fukki fan juróom ci weeru septembre atub waa ministère de la santé xamle nañu ni si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent test yi nga xam ne jot nañu koo amal ñaar fukk ak juróom benn ñoo ci am doomu jàngoro ji si ñoom nag kenn ki jege ñaale yi la woon la woon am na lu toll si ñeenti téeméer ak fukki euh, si ñi xam ni ñoom la feebar bi tëraloon euh, wër nañu kenn moom moo faatu yees ci mbas mi loolee yóbbu li mu ñi ci faatu bi mu duggee ci réew mi ak léegi ba si junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer juróom-ñetti doomu aadama jamono ji nag lu toll si ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti way tawat ñoo nekk ci loxol euh, docteur yi ñu leen di faj ba léegi ñoom nag fukk yaak juróom-ñeent ñoo ngi ci barabu Sowetaas yi ndax feebar bi da leen lottal ñu des ci lu soxal wér-gi-yaram ba tey ak wàccaayu màggal Tuuba jëwriñ bi nga xam ni moo gàlloo wér gu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ca ba muy amal tukki nemmeeku ni ki démb ca Touba xamle na ni lu toll si 3500 euh, agents de santé dañu leen di euh, yebal foofe ca dëkk bu sell ba ngir rek ñu amal màggal gi ci anam bi nga xam ni moom moo gën ba tey lu toll si ñaari million ci ay masque dinañ ko fa rek daal di joxe ngir taalibe yi ku si nekk mën a am masque nga xam ni nag daa bokk ci li nga xam ni euh, mooy xeex wàllante mbas mi ñu jeexal Euh, di euh, ki nga xam ne nag actrice bu bokk ci euh, série boobu di Karma moom nag actrice bi am na borom kër ni ki démb ñu gis ni mariage bi bëri woon na ambiance torop mu àndee koog ay xaritam ak i am di jàmmam kon jamono ji moom Ndeye mari ci turu Maram Dia lay wuyoo rédaction bu Sénégal 5 ak bu 5 TV ñoo ngi koy ñaanal rek suñu borom may ko sëy bu neex te barkeel te di ko wax heure ménage kon mbokk internet yi fi la ñu dal képp xibaar yi ma jox leen dig daje di abonné ci 5 fee bës si cloche bi ndax ngeen di suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf